ñoo fi toogee jotaayu sëriñ Tuubaa muy sëñ Baara Mbàkke moom sëñ Ahmed Mbàkke moom sëñ Baara mu sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ak Cheikh Mouhamadou Moutala Mbàkke mii ibnu sëriñ Sadeh Mbàkke ibnu Cheikh Mahmoud Mourtada Mbacke ibnu Sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di si teg kilifa yi nga xam ne ñoom lañ fekk ci gox bi ñu gën see ràññee Serigne Diouf muy sini kilifa di sini xarit di sini lépp ñuy bokk di jullee ci jumaa ji mu am ci taxawaay bu am solo ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di si nuyu di nuyu sëñ Saalu Njaay mi nga xam ne moom tamit ci kilifa gox bi la bokk boobu ba tey mu toog fi dëgg yàlla guddi gi sore na lool waaye lépp tamit ngir ah, jàppale gone yi ak ëmb leen eh, ak eh, gën leen ñaax comme moom tam ñu ngi koy nuyu baax a baax leen ñaar ñu jël nuyoo bi jàllale ñu ko ci imaam bi nga xam ne moo nekk ci gox bi ak chef ak chef de quartier bi ginnaaw loolu nag eh, Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacké mi nga xam ne leeru sëñ Sadikh Mbacké la yàlla dogal sëñ bi tukki bitim réew bis bii moo ko doon taxawu waaye mun nañ wax ne eh, eh, benn xeer bu jëm ñaari picc la ndax sëñ bi moo fi doon toog tey nag ñaari leeram ñoo fi toog comme yaakaar naa mun nañ mun nañ sant yàlla bu baax xam ne sunu borom nangu na liggéey bii nga xam ne moom lañuy liggéey te yaakaar naa sëñ bi fekkoon moo toog jotaay bi du yàggee nii ndax dinañ ci sóoraale lu bare bare waaye ñoom ñaar ñi yaakaar naa nañ ko mënee sëñ bi sa mënee ko noonu comme tey mën nañ see jàngat ne ñoom gone yi nañ xam ne lii joxoñ la te xam ne ñaan ñii lañ ko sekkal te gën a sàmmonte seen diggante ak ñoom ñaar ñi te xam ne ñoo bokk ay génération te ñoo ñoo ñoo ñoo war a ànd ndax lii yëpp euh, bëgg-bëgg sëñ bi la ndax des na tuuti sëñ bi dina xat-xat boo xam ne yaakaar naa jot si moom dina jafe comme nag lii joxañ la euh, nañ jàng mbind moomu euh, te xam ne nii la war a demee waaw sëñ bi moom sax di ko jénde guddi moom ëpp na waaw ëpp na comme nag mun nañ yem si ñaan ñi nga xam ne ay leeral lañ te moo te ko sëkk te yaakaar naa ni ñu toogee nii boobu ba tey fekkoon sëñ bi dinañ si sàmm yu bare bare comme ñu leen sant bu baax a baax di sant ki nga xam ne yàlla dogal na moo nekk ci bopp daayira bi muy sëñ Baara muy koo xam ne euh, xale bu baax la euh, ku am ay teggin ku am diine euh, yàlla dogal tamit ñi nga xam ne ñoom lañ njaboote tamit ñu nangul ko ñoom ñëpp tamit lii nekk si moom rek moo nekk si ñoom ñëpp muy ñoom sëñ Moussa Garas ñoom ñëpp wax dëgg yàlla macha allah comme nag ñi ngi ñaan yàlla yàlla yàlla mottali seen ndaw te def leen ay magu am ñam ginnaaw loolu tamit Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacke am na ay kàddu yoo xam ne sëñ bi yóbbante woon na ko si waa daayira bi xam naa su ko defee rek ñu taataan ko mu wax yóbbante bi su noppee ñu jox sëñ baara mu tëj ñaanam mbooram mi sëñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa nee mi ngi nuyu mbokk jullit fi nekk yëpp ak mbokk taal bi fi nekk yépp ku si nekk mi ngi lay nuyu sa te di la fay sa sant nee mi ngi nuyu góor ak jigéen ak mag ak ndaw ñoom ñëpp ku si nekk mi ngi lay jox sa wàccuwaay di la siyaar bu baax a baax nee bis bi yalla dogoon na dawon na si and ak señ bi si jamono yi nga xamne ne ah, fekk da ko fi fek neena na yàlla dogal ren mu fek ko touba señ bi am tukki boo xam ne da koo tukki bitim réew woo ko jox ko ndigal ne ko loo mën a jàpp na ko bàyyi te ñëw teewal ma ci bis bi ànd koog euh, sëñ sëñ baara nee Touba la suba ngir jooxe ndigalu sëñ bi neen nag muy ndigal loo xam ne am na si mbégte bu baax a baax a baax si teew gi nga xam ne teew na ko ci bis bi nee na sëñ bi nee na ko ñi nga xam ne ñoo jiite daayira bi muy ñoom sëñ Baara euh, sëñ Garas ak sëñ Moussa ñoom ñëpp nee na sëñ bi nee na gis na jàpp gi nga xam ne jàpp nañ ko te sëñ Tuubaa dong tax waaye nag mi ngeen xamal ne sëñ Tuubaa moom am na pay te bool na leen sëñ Tuubaa yàlla na leen sëñ Tuubaa fayal boppam. nee tamit di leen xamal ne euh, moom euh, sëñ tubaa sëñ tubaa rek mooy sëriñ bi nee na ñoom ñëpp ay jëwriñ lañ waaw ne ñu ñun nag suñ bunt sëñ tubaa mooy sëriñ Sadikh Mbàkke waaw comme nag nañ xam ne euh, am nañ bunt boo xam ne bunt bu am am am am am solo comme nag nañ ci jàpp bu baax a baax te góorgóorlu si nee mi ngi ñaan yàlla yaan nañ ko teewee negeen déwén te teewee ko ay ci barke Borom mi ngi gis na ne daayira bi mm, ay ndaw ñoo si ëpp te loolu dal na xel ndax mën na see rafet njoot ndax euh, ndaw mooy avenir u réew te neena mu mi ngi leen xamal ne ndaw moom mm, du ci ay at waaye si doxalin la ak pas-pas ak pastif nee na nit mën na leen ëpp ay at waaye jëf ji ngeen jëf du jëfi jëf jëfi magum jëmm la comme nag mi ngi ñaan seen borom seen borom jàppale leen bu baax a baax ba fii ngeen teg seen tànk euh, seen borom gën leen dimbali ba mu gën jëm kanam ci barke borom Tuubaa nee na fi muy daanalee kàddoom daal mooy lu sëñ Tuubaa doon wax nee kenn deful kenn dala lu waaye def sa bopp comme nag yàlla nañu yàlla doole dimbali te rafetal sin taalibe barki borom Tuubaa nee na sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp comme su ko defee rek ñu jox kàddu gi sëñ Baara su ko defee moom mu si ay kàddu mun a ñaanal mbooroon ورسوله أما بعد أيها المسلمون نتعيدكم بالإسلام يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara di jiital ci nuyoo bi xalifatu amli taifatul muridiya cheikh mouhamadul muntaxa di ko ñaanal suñ boroom guddal fanam te wéral cëram ba lépp lu mu naal ngir liggéeyal maamam Serigne Touba mu def ci lu kawe njortam te mu ànd kook taalibe yépp di siyaar mbooleem mbokki taalibe yi nekk ci biir tànt bi yépp di ko dalee ci sunu rakk ji nu àndal Cheikh Mamadou Mourtada di ko jox wàccuwaayam di siyaar bu baax eh, Serigne Diouf mi nga xamante ni itam ak euh, kilifa gu baax gi mu dendal ñu ngi leen di siyaar di leen jox seen wàccuwaay ñoom ñi nga xamante ni euh, ñooy kilifa yi xale yi taxawal lii di ay taalibe ñu nàmpatal leen ci lislaam nàmpatal leen ci yoonu murit ba tey jii ñu mën a taxawal lu mel ni nga xamante ni comme ni ko cheikh mamadou murtada budé ay ndaw ko taxali taxawale itam ñu jëfi ndaw jëfi magi jëm lañu def kon ab serigne mom ni ko seigne Assane Diaw léralé sank rek doy na sëkk dama koy ñaanal mu gudd fan ndax sa yuma ko ko da fay sama xel day dem ci kilifa gi nga xamanteni moma jangal xam-xam te tay ji ci ngol lañ ma taggene la fi bayiko xamante ni daanaka ci ngoon ba léegi sama xol sax dafa neexul waaye boo gisee ma ñëw fi yàgg fi man damaa bëgg ñoo xamante ni bu dee ay ndaw lañ di def lu baax dañoo jar di encourager bu ñu wootee nit ñi dañoo war a wuy ji dañoo war a teew buñ jaree soññ wax lu baax ñu waxal leen ko ngir li baax li ñu nekk ñu gën cee farlu xam ci ñoom lu baax li ñu nekk mooy lan encourager leen ci li ñu nekk mooy lan mooy li ñuy jëriñ àdduna ak alaxira ay ndaw nag bu ñu nekkee njariñ li leen ëpp mooy li li li li ñu bi sallallahu taala wa sallam waxoon laa tazal ummati maadaama shaqiruha yuwaaxirul kabir wa kabiruha yarxamu shaqir sama xeet bi duñ denc aw yiw mukk fekk ñi mag ñi ngi yërëm ñi ndaw ñi ndaw itam di fonk ñu mag wa jaxala mis mislika ka nafsika sëñ Tuubaa loolu la ñuy wax jëlal ni sa sa moroom nga def ni sa bopp ni nga fonke sa bopp nga fonke ko sa moroom di ñu ko ñaanal ci té téeram boobu wajxal saxira naa yuwaaxirul kabir wajxal kabira naa yuhinuli saxir yàlla na nga def samay mag ñu yërëm samay ndaw samay ndaw ñu fonk ñu wekk samay mag kon ñoom bu ñu doonee ay ndaw bëgg lu baax di di jàng tege ci yoonu siraatal mustaqim fonk jaamu yàlla bëggante soppante mën naa ne ñu ci ëpp duñ toog ñaari fan yu ñu wut kon xam naa leen bu baax a baax lu baax moo lañu bëgg lu baax leen ñor nit nag bu bëggee lu baax di ci nekk jar na ci lépp lu mu woote lu mu guddi guddi lu mu sedd sedd lu mu tàng tàng jar na bàyyi seen yitte yëpp ñëw teew ca niñ ci teewee sëñ sa dex bu fi nekkoon noonu la koy ànd ak ñoom muy sunu sëriñ nag ñun ñëpp ñuy ay maag ñoom ak sëñ Murtala ñëpp ñuy ay bokk ñi seen mbokk taalibe seen bokk taalibe lañ nga xamante ne yoonu sëriñ Tuubaa moom noonu la mel genn kilifa lay am waaw sëñ sa dex moom ñu ni mooy sunu sëriñ bu demee ci sëñ mun Muntaxa ab taalibeem la kon loolu fer loolu mooy taar bi kon ñu ngi leen di soññ ci loolu lii ñu nekk bu leen ci dellu ginnaaw ndax li def lu baax dafa yombut saa yu jógee di def lu baax nekk ci lu baax nim ko waxee léegi ci question yi lu ñuy wax dafa kokk kii dafa dafa waane xool ko xool ko lii muy sol mbubbam yu rëy yi muy sol foo ko gis mu ngi yor ab doll te loolu mu nekk bu keneen nekkoon ci leneen di sol ay tubay di di ko di ko wàcce baa muy so baa muy baa muy baa fu mu toll di def leneen loo xamante ni dëppoowut ak digale suñu borom dë dëppoowut ak digale Serigne Touba maanaam daa mel ne dañ koy encouragé ci loola loolu mu nekk da leen di neex waaye ki nga xamante ne dafa nekk ci lu baax saay ji nekk mu bu bu bu nee jamet ci seen biir day mel ne da xatal loolu nag li ko waral mooy nee nañ boo jegee yàlla képp doomu aadama da lay ragal saa yoo melew melokaan woo xamante ni saa yoo duggee ci benn bërëb ñooña da leen di déranger xamal ci yow li nga nekk mooy lan ak ñoom ca lañ nekk mooy lan am na ñoo xamante ni buñ duggoon fii léegi dañuy dañuy déranger ndax ñu ak ñoom bokkuñu melokaan waaye sëñ Tuubaa tamit amul amul amul boddi amul sànni amul génne sëriñ Tuubaa fat la am ak defar bu fekkee ne yow mi defaru fekk nga ku yàq mënoo fexe ba defar ko ba melokaan mi nga am yow sëñ baara baax yaru di yiw melo am melokaan bu baax keneen ku ñëw munoo fexe ba mu am melokaan boobu yow continuer nga dem defaru ji ndax yow defaragoo defaro kon bay meuna defat kenn léegi serigne tuba amut manam ki melokan sangam lam melokan wo mu am indi ko ba ci yow nga fexet jël sa melokan wi nga am nga def ko ci mom nenañ bah bu la baax tëwee ànd rek ñu bax bu yagge nga bax bon itam bu la tëwee rek ñu bon bu ko defé nit ki bo dé and ak di ko digal lu baax di ko tere safaan wa mu gis la nga nekk ca la koy digal bu yàggee yéen ñaar yéen a koy ànd di ko def ndax loolu lañ sëñ Tuubaa wax wax ma nit euh, xaritam ma wax la ni mel kenn ku ne ci sa xarit ci ngay roy kon melokaan wi ngeen am muy melokaanu taalibe melokaanu euh, euh, am murit fexe kep ku dugg ci seen biir yor wenen melokan bu len ko boddi bu len ko sanni xecc len ko bamu ñew melokan wi ngeen am ngeen fexé ba def ko ci mom bu ko defé ngeen xamné kat yeen li ngeen nek wor worna li ngeen nek rek ay dëgg loolu ngi len koy gëna denk ndax ñun ñëpp ay ndaw lañ ñun ñëpp dañoo ci yoon wi bëgg lu baax bëgg li ñu digal ak lim ñuy tere kenn bañ ñu see gis lim ñuy dugal ñu fas yéene cee nekk dafa am yoo xamante ni.